nataal juróom-ñeent ay sëtu isaaxa jur na xeet yu mag ñu leen di wooye waa israel bokk na ci sëtu isaaxa yi ku ñu doon wax muusa moom it ku gëmoon te ragaloon yàlla yàlla woona muusa ci kaw doj wax ak moom daldi koy jox àllawa bi ñu bind yoon yi mu war a digal waa mbooloo mi muusa wàcc ci doj wa indaale santaane yooyu ñu bind ci xeer digle yàlla yépp yu baax la te nit ñi la ko digleel comme nañu ci toog